dañuy dañuy naan góor euh, xëy na moo am doole mais jigéen li mu boole dafa dafa am solo mooy doole ji mooy xel mi mooy pas-pas bi ak pasteefu gi mais surtout mooy générosité bi te loolu yàlla moo ko ko dénk jigéen magasin wu yàlla la ba tax na euh, ngay gis avec aisance jigéen doon kilifa wala yor liggéeyu boppam mais jigéen boole kook njabootam boole ko euh, euh, naka la ñuy waxee liggéey professionnel am mais boole ko aussi ak vie sociale am ba tax na man de xëy na doon na gën a metti su ma amul woon euh, déjà cette capacité mais dama naan alhamdulilah parce que j'arrive hein j'arrive à m'en sortir yenn saa nag dina metti yenn saa yi c'est au prix de beaucoup de sacrifices yenn saa yi moom vraiment mu mu diis torop waaye du xool du gëstu da ngay avancer parce que jigéen loo ko dénk na nga ko xam da koy mëne ba mu mat sëkk jigéen lu mu jàpp du ko bàyyi te jigéen bu ne waaw dootul wax déedéet euh, moo tax ba man dama naan loolu mooy sama source de motivation mm-hmm. euh, et ci 8 mars bi damay kontaan di di di di honorer la femme la femme dans le sens du sacrifice jigéen lu muy daj yàlla rek moo ko xam mm-hmm. ndax doo génn naan lii lay daj mais jigéen ci biir kër rek coono la mm-hmm. yore toute une famille di gérer xale yi yenn saa yi nga war ci boole papa ji ndax euh, même bu dee mooy sa kilifa yow yaa koy toppatoo. yaa koy dalal yaay dalal xelam yaa koy noppal yaa koy jàppale. qu'on le dise ou pas c'est le de la femme. du mbirum société rek wala culture mais jigéen loolu la moom la ko yàlla may bu góor jaaxlee. wala mu am lu ko naxari wala mu am fu mu bëgg a yegg faaw mu am jigéen bu nekk ci wetam di dalal xelam moments de désarroi mais di ko may fit aussi dans les moments de découragement daal c'est la bergère suñ ko mënee waxee ci ci kàllaama euh, euh, na ñuy waxee euh, économique dañ naan jigéen mooy premier kër ndax gouvernement kii yëpp moom moo koy gérer éducation wu xale yi propreté wu kër gi lépp loo xam ne rek dina tax ba kër gi neex li nit ñi di lekk ah man damay fàttaliku sama doom yi su ma duggee ci waañ bi mais dañuy kontaan ba man damay dama naan lii waruma ko bàyyi di def et il m'arrive ah di fi di pas facilement mais il m'arrive exceptionnellement ma dugg ci waañ bi fan yi defaat naa ko mais j'étais tellement content dama toog di way te dama gëj a way dama bëgg a way mais à force d'être dans la cuisine je me suis rendu compte que je chantonnais donc dafa baax sax euh, lu mel noonu pour diir que jigéen en tant que maire muy M A I e, c'est d'abord une mère M e mais c'est d'abord la mère MER e jigéen géej mbaamu laan la jigéen ku xam li ko yàlla may mën nga cee jëlee lu ne ndax foo ko yem mu yem la fa waaye boo ko wanee ni yow yaay mère yaay mère beneen bi yaay beneen mère bi yaay lépp yaay géej yaay yaay yaay euh, voilà yaay gox bi <laughs> moom moo may tooñ naan ma yaay yaay dëkk bi donc lu mel noonu jigéen mën na ko